nekk délégué syndicat xam nañ délégué syndicat am na nu muy mel du neex administration bi donc tey Ousseynou Thiam subir na injustice boo xam ne ci biir société bi ñuy woowe Eiffage muy société française bi implanté wu fii te mu yor wàllum autoroute à péage ñu déglu Ousseynou Thiam religieusement te seetaan vidéo bi ba mu jeex te partagé ko aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا asalaamaaleykum wa rahmatullah Sénégal waaw jërëjëf Ndiaga ñu ngi lay ziar wér di jox ñëpp seen wàccuwaay di am maanaam courage ak tamit maanaam xol bu naqari lool ngir ñëw dénoncer injustice bi am Eiffage te mu yàgg fa lool. ñu def ko tamit ñu bari ñoo xam ne xëy na seeni mbokk dañ leen wax ne leen bàyyi leen leen ak yàlla wala dara. waye man nak mané même bu féké sax ñom dañuy am ndam sama kaw manam dina ko dénoncer ba nga xamné ne euh, ñeneen ñi fa des ñom dinañ leen may jamm ndax xamné suñ ko défaaté defaatee keneen euh, kooku bu génnaatee wax dinañ xamné ne li fa xew ëpp na. Euh, Eiffage nak ma nga fa ñew juillet 2016 yàlla def bu fekkee bu fekkoon maa ngi fa fim toll ni bi ma ngi ci sama 7e année waye biñu ñu arrêté sama contrat ak légui euh manam amna 4 wala 5 mois en avril la woon. Euh, durant six ans yëpp nag musuma fa am benn jafe-jafe macha allah suñu borom suturaal ma fa lool. Euh, bi ma demee ba commencé dugg ci yëfi délégué nag maanaam ak délégué ni ñu ko gisee Sénégal nga xam ne euh, maanaam dañuy gis ne kii dafa ñëw pour yàq entreprise bi ak di kaas rek. alors que maanaam délégué yoon moo ko may sañ-sañ ndax ku ñuy fal la ci biir entreprise ngir ko jafe-jafe employé yi moom mu mën a di ci waxtaan ak chef yi pour que ñu saafara ko ci loolu nag dafa fekk maanaam bi ñu commencé bay wax waxu coopérative d'habitat bu Eiffage bi Euh, nga xamné euh dafa am ño xamné dañu jënd seen terrain ba pare euh, jotaguñu seen seen terrain ba paré ci caisse coopérative bi ci euh mu am ci xaalis bo xamné ñun délégué yi dañoo gisoon ne lu ci manqué biñ commencé di di di di di càmbar loolu dal si la si la samay chef euh, ne délégué il faut que ñu ñu ñu ñu ñu tas leen man nag malchance bi ma si am moy que ne euh, dafa dafa fekk man ma nekk chargé de communication bu euh, délégué manam maanaam du ma wax sa ëpp ci détermination waye man lepp lu moy sumbu mom dama ci dem ba jeex ñu gis né nak xeyna li bu feñé dina am xëy na seen der dina si wala ñu amna da luñ ci neub si nëbb de en quelque sorte comme ñeen ay journaliste ngeen xeyna bo leen approché woo ak ñom ndax dina am ay peut-être documents yo xamné euh, parce que délégué dañu dem ba saisir euh, di waaj

Euh, ci loolu tamit li ci yokk mooy que ne euh, maanaam euh, péage bi jumtukaay yi dafay faral di am jafe-jafe yu bari yoo xam ne yooyu day répercuté wu si ñun ndax amna ci ño xamne fa lañ contracté ay maladie yo xamne bo démé ba bëgg leen sonal dañuy fexe dakh la nga dem dem ak sa feebar ndax xamne manam accompagnement biñ la wara mëna defaral ak loolu xeyna day cher ak yoyu manam nekké ak jaay doole go xamne dal nit ñi ño amul courage dénoncer ko rek mais xamna ne defoon nañ ko ñu bari ño xamne même avant sax may ñëw man ci entreprise bi su fekkon na ñoñu commencé won nañ dénoncer kon xeyna man du won agsi ci man loolu man loolu nag ci la conscient xamne kon man suma ma leen dénoncé xëy kon dinañ arrêté ñom liñ nekké ndax du dëgg du yoon euh légui nak Euh, ma commencé di leen wax ne leen maanaam intervention yi ngeen di def si voie par exemple euh, antenne rapido yi antenne yi nga xam ne soo yore carte moom mooy tax nga nga mën a jàll yooyu parfois day faral di panne ndax ay camions dañuy romb di ko mbëkk mais temps bi ñu war a def pour réparer ko parfois mun na ëpp un an. notamment ci gaaru toglu bi nga xamné fa la nekkoon ak it ay chaises yo xamné chaises yu ñu tok bokk to comme chaises ndax dafa am si ginnaaw maanaam loo xam ne day waaw so la chose orthopédique mais manam da fay am parfois ressort bo xamné mo koy téye pour que nit ki su togué mëna tok confortablement ndax ñun mouvement yi ñuy def ak manam posture bi ñuy am dafa am solo ci suñu liggéey ndax bu dul lolu da ngay dem ba liggéey mais so waccé sa yaram bi dafa melni dañ doon jël ay yatt di la ko dóor léegi nag chaise yooyu maanaam ñoom dañoo wax ne soo leen ko signalé ci benn fan sax war nañ koo mën a saafara wala su ëppee ba ëpp ñetti fan waaye nit mën na mën naa topp di ko bind weer wala ba ñetti weer te duñ duñ ko duñ ko saafara fi weeg nit ki taxawul jël courage am ne leen tay jii boo leen changé wul chaise bi du ma liggéey munoo fexe bañ changé ko parce que xam nañ ne soo leen ne du liggéey maanaam voie boobu ñu nar a tëj nga xam ne kenn du fa nekk day day day gën maanaam day tax euh, oto yi maanaam fil bi gudd daal loolu dong moo mën a tax ñu jël seen responsabilité changé chaise yi légui nak bi coow commencé bari ci lolu ay chaise ak ay lampe yo xamné manam ak ay poubelle sax poubelle sax da ngay dem ba poubelle boo xam dafa toj pour wax la manam du yak der mais li may wax ni moy réalité bi te amna ay image yo xamné dina la ko jox nga joindre ko ci preuve à l'appui parce que bi ma nee ba xamné ñi dañoo commencé acharnement sama kaw ngir bañ may wax li xew ci péage bi kaas ndax dañuy japp ne kaas yooyu ngay kaas bu ko chef bi nekk si kaw yëgee day mel ne ñoom liggéeyuñu seen liggéey waaye léegi kay comme yow man dégg nga may commencé di kaas yow approché ma ne ma yow lan mooy sa problème ma mën la wax comme yow bëggoo mu àgg si kaw kon bu ko defee yow man comme chef bi euh, nekkul ne dama amoon intention pour yàq seen der wala dar mais ñun day répercuté su ñun parce que carte rapido yi bu fekkee ne euh, badge bi ko war a détecté baaxul euh, client bi ñëw avancé si voie bi arriéraat di génn fii di la jox carte bi nga war ko jël carte bu nekk nga war ko saisir manuellement mais loolu c'est une charge de travail en plus bu tegu suñu kaw en plus aussi euh, affaire euh, pièces yi manam dal ci sama li tax ñu ma fa si ñetti poñ moy pièces yi nga man dama né duma laaj ben client moné ak pièce ndax client yi bo leen laajé moné problème bu ci sa ak ñom dañ la naan wécc leen bi client yi da nga commencé di client yi la ndax munuma euh, pour bañ a am problème ak clients yi comme ni ma ko waxee ci début bi nga xam ne juróom benn at yi ma fa def yëpp musuma fa am benn jafe-jafe parce que damaa xam li nga xam ne mooy indi jafe-jafe sama diggante ak entreprise bi si boppam ak sama diggante ak clients yi di ko moytu ba yàlla suturaal ma fa ba 6 ans yi bi ñu commencé tudd affaire coopérative bi nag si lañ bëgg a jël maanaam yeneen mbir ërtal ma ci ba fexe ba dàq ma te ils

te lolou tamit momu ma ci ay euh, mbiru délégué première chose bima wax ko moy affaire pièce bima ma leen nee léegi laaj pièce chef bi nag daan ne ah comme ki dafa commencer bëgg yaax sama entreprise kon euh, euh, service am dal né dina jël ay responsabilité am fexe man ba abal ko dal mané ko kon bismillah buma len leen pièce ñu téndé fal wala ñu nekk fa di yeexantu ma tëj cabine bi ñëw ba ci kaw laaj leen pièce ñu néma ma lu tax nga génn sa cabine man la parce que dama len laaj pièce ngeen toog indiloo leen ma euh si loolu mu débouché sur une mise à pied de 8 jours mais man amul problème sama copain délégué tamit ne parce que comme nous ci ay affaire ou euh, ci affaire euh, euh, conciliation entre direction bi ak ñun ñu doon waji dem grève ministère du travail financé woni formation bo xamné ñu ko une résidence Mamoun ñu jógee ci lolu Nous ñu ne kon jarul ñu avons fait ñu Nous la ñu fa chef bi ci nous ki nga xamné moy responsable péage bi am xaritam bo xamné dafa xamné commencé na am ak problème mu bëgg dugg ci problème bi pour nous, nous ko affaire moom c'est que damay bañ wax mais poste bobu mom dong moo ko fa am mom le responsable péage mom dong mo fa am responsable waaw ak na tamit amna ñaar ñu top ci mom on les appelle des CDG des des chefs de gare ñom aussi bëgg top manam yokku ci euh, manam di di ko sotle naan ma boy bi dafa bëri casse nangam nangam melni dal dama ñëw man pour yàq leen wala dara mais man dama bëri casse mais ñeen déglu leen li may kaas ba xam yoon la wala du yoon <laughs> bu féké yoon la ngeen xam bu féké du yoon ngeen xam comme nak ñeen ñeena may liggéelo ñeena mo ma war jox pièce parce que ya mané ne fexeel ba bul am problème ak client man nak ci loolu la nek kon nak jox ma samay pièces ma liggéey ak ak clients yi normalement euh, euh, bi loolu wesso nak manam té client yi sax pour wax fofu que ne ñoom seen bop dañuy proposer à ce que euh ñu def ñaari gaar yépp 500 500 nga xamné problème pièces yi day ko loolu bi ma leen ko proposer dañ né ñom fixation prix yi euh, ñom géré wuñ ko état bi mooy fixer prix ak peut-être top management bu entreprise man leen wa d'accord loolu mën nañ ko comprendre mais lu leen tere léegi ngeen def ticket avoir boo xam ne nit ki nit ki su fayé toglu euh 1000 francs ak saa ñu bindal ko ko ci ticket boo xam ne bu demee si prochaine gare bi da koy fayee directement wala sax mu téye ko ba ba saa yu waree jàllaat mu ñëw kii mu xool lu mu ci dolli mais euh, ñu ñu ne ma euh, loolu li ma gën a jaaxal si loolu li ma ci gën a métti nee nañ logiciel bi nga xam ne moom la péage bi di liggéeyee France ñi ko ñi ko gérer France lañ nekk. mais ñun Sénégal man man man man ñun Sénégal dafa amul ay techniciens yu ko mën a euh, gérer wala transfert de compétence xanaa war na mën a am. parce que entreprise nekkul ne da nga ñëw nga jox ko rek moom muy doxalaat doxalam ba 2039 mu joxaale sa entreprise non soo ko nit ñi mais film mu ni nii nii lañ war a di former nit ñi ba pare sax lan moo tax ay ñoo xam ne dañuy euh, euh, administrateur ay ay ay euh, logiciel du nekk ba France bien que les ak connexion internet nous na nekk fu nekk di def lu mais temps d' intervention mbir yi su Sénégal si lay gën a gaawee man ci sama xalaat ce qui fait que ma proposé leen ben kii boo xam ben logiciel boo xam ne lu ñu war a yokk si logiciel bi yoo xam ne bu ko dina tax euh, loolu mën a nekk mais loolu duré na trois ans yoo xam ne après dañ dañ naan ma ñi ngi ci ñi ci rek man leen nag man kon man dootuma laaj kenn pièce affaire euh, chaise yi nag ni mu demee mooy que ne euh, chaise bi ñoom dañoo wax ne balaa muy am trois jours war nañ ko mën a réparer ba bon pas réparer sax parce dañ ko war a changer parce que bu ñu ko réparer anomalie boobu am si day ñëwaat léegi nag foofu li ma fa war a souligner mooy que ne Euh, Sénégal entreprise yi il faut que ñu xam ne dafa am réalité soo nekk soo fa nekkee di wax ni dañ lay tiital wala ñu am dañ lay xoqatal wala ñu baatal la naan kii dafa bëri kaas wala dara loolu nag euh, ñëpp loolu day tax nit ñi nga xam ne ñëpp tolloowuñu degré am fit wala di xam seen àq ak yelleef di ko di ko kii léegi bu ko defee ñi ragal dañuy bañ dàq leen wala ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bundu xatal leen tax ñoom dañuy ñëw toog liggéey seen liggéey wàcc dem seen yoon.

Euh, après sax pour témoignage peut-être dinaa la jox numéro pour que nga xam ne li may wax ne ay faits réels te tamit dina am sax am na sax sa sa confrère yoo xam ne yu set euh, Sénégal set defoon nañ si benn vidéo boo xam ne euh, ancien secrétaire général voilà moo ko defoon doon dénoncer kaaw harcèlement wu femme enceinte boobu. ak maanaam directeur ressources maanaam adjoint directeur ressources humaines bi nga xam ne daf ne dafa dafa dafa dafa d'accordul woon ci ci ngir ñu dàq ko waaye moom si boppam la njëkk a pour wax la kaawu harcèlement dafa yàgg Eiffage directeur général bi nga xamni mo mujjé ñew defagum fi deux ans tuddee Xavier Idié sa façon de gérer la ñuy décrier té dafa battre le record des sanctions bi mu fi ñewé ba légui moins de deux ans limu mu ak limu sanctionné ki fi def 5 ans defu ko ba tout récemment le cas de Raphaël Henri Zalé bi nga xamni il a été licencié de façon très arbitraire et illégitime da fay baax ñu rappeler leen lutax ñu dàq ko lutax ñu ko mooy faut remonter c'est un dossier qui est synchronisé avec le dossier de Bintasar, c'est une dame technicienne de maintenance Elle xamni une femme enceinte mu ci équipe ni elle était victime des harcèlements ak ay menaces si le saisir l'inspection du travail bi mu saisir l'inspection du travail pour que kat ñu may pour que inspecteur renouer le dialogue malheureusement biñ démé fofu ñom sax proposé nañ ko 6 mois de salaire pour ñu def départ à l'amiable négocier Dame bi rejeté lolu bi Dame bi rejeté loolu amul conciliation té inspection soo fa demee amul conciliation dañ leen bindal PV de non conciliation transférer leen ngeen dem tribunal mu àtte leen gis nga PV de non conciliation Bob. mo déclencher lepp bi mu ñëwé ci entreprise bi pour confirmer directeur bi dictateur la jappé boppam wala euh, ñàkk respecté nit ñi la jappé boppam mu ni gis comme que amna na PV de conciliation légui mu jox ordre son DRH niko ko bi dàq len ko ndax dafa ternir l'image de l'entreprise elle nous a saisi au tribunal. femme bobu bi harcèlement bi commencé ci mom dafa dem inspection du travail bolé entreprise bi entreprise proposé ko 6 mois de salaire mu ne leen 6 mois de salaire man luma koy doy suma ma 6 mois de salaire mu jex léegi après man na laay def euh, euh, malgré ça euh, ñu daan ne ko kon nga démissioner wala daal nga xol no def léegi euh, délégué da di jël combat bi def ci liñ ci wara def yëpp euh, conseil juridique yu entreprise bi ci bopam ne ne ne directeur bi li c'est une mauvaise idée vraiment bayiko bul bul bul bul dàq fami yi len xol benen arrangement directeur des ressources humaines bi nga xamné après jëlul ay responsabilités mom ci bopam aussi euh, ne woon directeur bi ah xam nga rek est-ce que doo jéem a xool duñ jël seen responsabilité directeur né ne mi ngi dem France te balaa muy ñew bëgg nañ ñu dàq fami euh bi mu waxee loolu. Euh, directeur des ressources humaines bi daal euh, euh, jël lettre bi daal absenté jox ko adjoint am ne ko famille bu ñëwee na nga ko ko jox euh, adjoint am tamit am ba bëgg a dee <laughs> ne ko duma ko ko jox parce que non seulement motif yi ngeen évoqué c'est très léger mais en plus euh, c'est une femme enceinte et la loi interdit de la licencier mom ci bopam ñu daal koy licencier mom d'accord, mom d'abord, mom mom agent ressources humaines bobu pour euh, ni ñu koy waxee sax euh, insubordination parce que ne ko dañ laa sant loo xam ne <laughs> pour vous dire que ne cas harcèlement nous grave euh, Eiffage bi ñu ko dàqee ba pare moom femme bi aussi par la suite ñu Nous ko ñu def conférence de presse demoon bay waaj a def grève lu ne def nañ ko mais malheureusement ñu mujj ko dàq noonu bi loolu weesoo cas harcèlement dafa continuer Eiffage direction générale bu FH daal di génne note bu ñu protection contre les représailles nga xam ne dañ ne nit ki bu fekkee sa chef daf laa ërtalati bëgg laa dàq wala mu lay indil jafe-jafe yow am nga sañ-sañ ñëw ba ci direction bi nga wax leen ko bu ko defee ñoom ñu xool yan matukaay lañ si jël ngir sa chef boobu arrêté li muy def euh, man bi ñu commencé harcèlement bi ci man ma daal di ñëw ba ci directeur des ressources humaines bi ne ko sama chef yi li nga xam ne maa ngi kaas di nekk seen service ak li nga xam dama ne du ma laaj monnaie parce que bëgguma jote ak benn client loolu moo leen metti ak affaire coopérative bi ñu commencé woon a dugg moo tax ñu bëgg ma ëttal nii ne ne ne ne ne dañ may dàq. dafa lëndëm. mbir mu lëndëm mooy affaire coopérative Eiffage c'est comme ay journalistes ngeen dem leen ngeen xool. boo leen laajee parce que ñu li ñu leen laaj li tax ñu xam ne euh, am na problème mooy que dañoo toog plus de cinq ans yoo xam ne defuñu assemblée générale ça c'est un deuxièmement ñu laaj leen ay factures yoo xam ne parce que dañu déclaré ay dépenses yoo xam ne xam nga jaga bu ñu waxante dëgg ci yàlla tax maanaam prix yi nekk ci marché bi ñëpp ko xam mënuma laa yónni ne demal jëndal ma benn saagu ciment saagu ciment bi euh, nga ne ma saagu ciment maa ngi ko jëndee 7500 euh, ma ne la waa d'accord nga ko jëndee jox xanaa kay bu fekkee 7500 ko jëndee facture war na laa mën a yomb wala nga dem ci ci ci ki nga kii woon ne euh, ci ki nga jëndee woon ne euh, ñi ma yónni woon dañ maa laaj facture mu jox la facture tout bonnement mais bu fekkee da ngaa a indi facture c'est parce que am na looy nëbb léegi bi ma ko waxee loolu moom mu jël ko à la légère quoi directeur des ressources humaines bi mais li ma ci gën a méttiwaat sax mooy que ne bi ñu demee euh, ministère du travail moom dafa nier que ne man damaa ñëwoon bureau moom directeur des ressources humaines maanaam daw ay responsabilités am Euh, heurtel bi commencé bari euh, sank maa ngi lay wax ne la euh, waa nga xamne dafa nek xarit ak boss bi di def lo le sal boulot commencé ne dima di momit bok ci heurtel bi bal ne daal kii daal naa sotle sama sama copain pour pour ci xex bi ben jour mu beug ma imposer le port du masque ma ne ko tey mënu ma masque tay parce que dem ak barki dem sax liggéey siwu ma sama sinusite bi dafa ma dané lon mu ko da ngay tak masque par force <laughs> wala nga ñëw wacc c'est bobu ñi ngi nek ci logique ñom voilà montel ma dossier voilà pour que ñi nga expérience monter ma dossier boo xam après fu ma mënti dem ba voilà pour dàq la day yomb te après même soo demee tribunal balaa ee sax foo mën dem dañ naan li nga def dafa bari kenn mënu défendre ma xam loolu nag comme directeur des ressources humaines jëlul ay responsabilité am euh, euh, incident bi mooy affaire chaise bi nga xam ne ñoom dañ ne si euh, si euh, trois jours maximum war nañ ko mën a changer ma am poste le 2 ak le 3 février Euh, di signaler ñaari cabines yu bokkul yoo xam ne chaise yi baaxul. Euh, le 14 février ak le 15 février nous gis qu'on kon le 3 et le 14 déjà euh, c'est plus de 11 jours Nous avons dañ 3 jours ñu changé chez nous. Euh, signalé anomalie le 2 et le 3 dama fa wax sama SP superviseur péage il problème mais chez bis bu ma cabine changé ko le 14 ma ñëw am poste ci cabine. ma ne leen euh, le 2 ak le 3 signalé woon naa leen ay anomalie de chaise waxoon naa leen ne boo leen ko changé wul tamit du ma liggéey euh, tey nag ni ngi ci nag du ma liggéey ñëw leen changé chaise wala du liggéey bi ma leen waxee loolu ñu ne sër gis nga booy bi nag commencé na indi ay problème nangam nangam daal di dem ci benn cabine boo xam ne chaise bi baax na indi chaise boobu ma toog liggéey le jour le 14 ba le 14 jeex ñu ñëw ba le 15 maanaam chaise bi nga xam ne baaxul woon fi ma nekkoon le 14 ñu jël ko yóbbu ko beneen cabine. cabine bobu ñuko ko nak le 15 fofu lañ fofu lañ ma posté man leen ñen xana ñen ñen ñen da ngeen di fonto nit ñi wala lan la mais mëno laaj direction bi laaj euh, responsable péage ñu ne le chaise mi ngi fi à à gogo té boo leen laaj ñu indil leen ko ñu indil la ko à trois en moins de 3 jours. ñu ngi 11e jour démb problème chaise mo amone tay ngeen jël chaise bu baax lu dem indi ko fele bëgg ma liggéeyaat duma ma liggéey fekk entre temps boss bi nee euh, Ousseynou dafa comme dafay jaay ak man affaire de bras de fer di jema défier sama autorité su ñëwatee bu len changer chaise yi na liggéey noonu wala wala wala mu bàyyi le 15 tam man len liggéeyu kon di ngeen changer chaise wala duma liguey il faut prendre ses responsabilités ñu jël sama dossier yóbbu ko inspection si lool nak daf ma jox demande d'explication pour une troisième fois en moins de 6 mois ci ko xam ne daf na 6 ans ci entreprise. amul ben ben dara nga jékki-jékki rek mu nekk l'agent le plus problématique ma jël sama responsabilité mu jox ma demande d'explication ma tond ko lu lu lu lu tontu bu saf sap jël ko dougal ko ci biir groupe euh, les délégués vous parlent groupe whatsapp bu entreprise bi yëpp pour que moom mu arrêté pour que entreprise bi xam li mu nekkee comme directeur ressources humaines bi jëlul ay responsabilité pour que moom mu arrêté parce que harcèlement mooy mbir moo xam ne yoon si boppam sax daf ko tere parce que nit bu fekkee liggéey ngeen séq liggéey ngeen séq amoo droit di ko ërtal wala nga koy kii. bon Gérard Senac depuis quatre ans bokkatul ci euh, comité exécutif euh, bu bu bu Eiffage waaw mais.

non xam nga en fait euh, euh, Eiffage dafa bëri ay filiale Sénégal mais euh, fii nga xam ne mooy bu péage bi moom directeur général bi Xavier Idié la tudd waaw moom ay chef am France lañ nekk ku mel ne Cécile Cambier ah ak euh, comment dirais-je l'autre là euh, après dina dina dina dina dina la wax turam dama dama fàtte turam mais Cécile Cambier fan yele sax jamono yi passé ñewon d'ailleurs sama page LinkedIn dama jël sama responsabilité dugal fa vidéo bo xamné je l'ai faite en français euh, ñoom ci bopam ma tagué len ci sama page LinkedIn pour que ñom ñu mëna gis agissement yi am ci biir entreprise te xamné nit ñi li ñuy wax le sentiment anti-français c'est une réalité parce que nous ñëw pas ci euh, à un étranger ñëw ah, c'est étranger ou pas sax même su fait qu'on lii ay entreprise nationale ñokay def au Sénégal mais on allait quand même le décrier parce que du yoon lu dul yoon du yoon gan def ko ak ñak gan du yoon hum, effectivement voilà entreprise yëpp koy def léegi nag il faut qu'on nit jël sen responsabilité di dénoncer ba paré di porter combat bu fu mënti yam mu yam fa parce que bu len léré ne à chaque fois ñu nar a dàq nit ci luddul yoon dina am opinion bi ñëpp jug taxaw kon dina am fu lo xamné fa lay yam té tamit may souligner que ne maanaam euh, à l'heure bo xamné ne fi Sénégal y a la crise de l'emploi c'est partout sax à travers le monde kon nak boy di jël gaal yi di dem ku jël gal gi ñu yedd la fi mu de surcroît un délégué du personnel bo xamné les conditions de travail You ses collègues nga c'est tout à fait normal d'ailleurs sax lool motax loi protéger délégué du personnel nga xamné kenn mais lima que metti gën ma ma ne ñun que inspection du travail bu Thiès ministère du travail euh, ñom dañoo valider licenciement euh, maanaam euh, que ne chaise bi comme que ñeneen ni waxu ñu ne manam ñeneen ni déclarer wuñ ne que ne chaise bi dafa yàqu man donc mako déclarer comme normalement kon chaise bi amul anomalie mané len nak ñoñu ñooñu dañoo am ay contraintes parce que si entreprise yenn bo fa nekkee di casse dañ lay téyé do avancer wala ñu fexé ba ba indi la ay problème dal am na ñoo xam ne loolu daw motax ñom dañu ñew liggéey seen liggéey après génn am ño xam aussi comme li ma la wax dañoo bind bind bind bind ba ba plus de ay 3 mois ba décourager kenn du changer chaise yi lampe sax daf mëna fa def 3 mois. Goudi gi tant que newoo leen tey du ma liggéey si cabine bi kenn du mais pourquoi une entreprise qui se fait des millions sur le dos des sénégalais pour problème chaise wala lampe wala ay antenne RFID yo xam ne moo moo tax yi war a mën euh, normalement parce que ñoom euh, dañuy fay seen xaalis aussi mais mun mënoo jaay ni carte rapide ba pare mu ñëw ba ci voie bi nga xam ne moom la war a nga naan ko antenne bi <coughs> antenne bu baaxul mais au moins war na am message yoo xam ne da ngay wax ne voix bi c'est pas oui c'est pas c'est pas utilisable pour 3 jours wala pour 5 jours wala une semaine sax mais pas de communication ni rien mais c'est c'est c'est abusé quand même. donc mi ngi nii ñoo ko déggandoo dégg nañ tey cri de cœur bi nga xam ne tey moom la Ousseynou Thiam def fii ci sunu micro mu mel ni tey vraiment dëkk bi.

que ni vraiment dëkk bi du dem ndax boo mënee am sa jeunesse ku mel ni Ousseynou Thiam mi képp ku ko xam laa la képp koo xam xam ne kii ñafekat la taalibe la nit ku dëggu la nit ku gëm yàlla la donc lii nii ñu ngi koy dénoncer te aussi dinañ ko accompagner ci xeexam bi fu mu mënti yem mu neex koo xam ne day jël ay charrette di dem liggéey chaise yi wax mi ngi ni nan la entreprise bu mel ni Eiffage warut a mën a defar chaîne wala ay patron Sénégal bëri na ñoo xam ni vraiment ay comme duñu ay sénégalais comme duñu ay sénégalais yéen ñoom am fii bëri na entreprise yi nga xam ne tey nit ñaa ngi fay dund lu raw càmm yi la muy dund wala dàq dàq nañ leen dàq boo xam ne tey moo raw lii. j'appelle à la jeunesse bi nga xam ne tey ñi ngi ci entreprise di dund lu metti wala koo xam ne def nga ci entreprise quatre ans trois ans mënoo am contrat bu normal maa ngi leen di ñaan di maa ngi fiy def numéro ñu ñëw dénoncer entreprise yi entreprise surtout entreprise nationale yi ñoo xam ne amuñu benn xol comme duñu ay sénégalais bëri nag mënumaa lim entreprise yëpp mais entre la moitié des entreprises sénégalais laa lay waxuma la sax yi tubaab yi nii ay Eiffage wala nangam sangam yi nga xam ne ay sénégalais ñoo fa nekk entreprise sénégalais respecté wuñ sax sénégalais ci boppam ba néew na entreprise yu respecté sénégalais ñoo ngi ñaan tey état du sénégal jël dossier bi en main waa inspection du travail nag bett nañ ñu trop trop trop trop tey inspection du travail bu mënee ba mënul jox dëgg kii wala ñu dem xaatim ay ay ay ay ay loo xam ne dina daan effage ñu réintégré Ousseynou Thiam ku mel ne Idjé tey nan la ab tubaab di mën a ñëwee même waxuma la tubaab sax wala ma entreprise français tey boo gisee tey ñu nekk euh, sénégalais yi wala Afrique am sentiment boo xam ne bañ français yi wala ñu am sentiment wu anti français bi nga xam ne tey dañuy bañ français yi carrément ak entreprise français yi wala bu bu manifestation amee ñu leen taal genre yu demee nii rek la genre yi rek moo ko waral donc état du Sénégal nañu gën a jël seen ay responsabilité gën a am fulla ak fayda ci doomi réew mi gën a jox seen ak ak yelleef rawatina jeunes yi loolu cri de cœur la buñ leen buñ leen buñ leen jox ku mel ni ministère de la jeunesse tey mi ngi fi pour jeunes yi donc pourquoi du auto-saisir bu déggee li ku mel ni ministère de l' intérieur mais war nañ mën a woo directeur Eiffage bi muy euh, Idjé wax ak moom donc vraiment daal vraiment vraiment lii cri de cœur la bi nga xam ni tey ñun ñëpp war nañ cee jàpp képp ku mën a taxaw Ousseynou Thiam ngi lay ñaan nga def signe ñu mën koo taxaw ñun ñëpp ñu porté loo combat bi bëri na combat yi fi mu ne bu ñu bëggee dëkk bi aw yoon balaa muy dem ci ay administration yooyu yëpp xeex dafa am fu muy jaar te xeex bi gën a war mooy jeunesse bi ak seen bërëbu liggéeyukaay yi dëkk bi bu tax mu metti yooyu rek la ci bërëbu liggéeyukaay yi la tàmbale te il faut ñu xeex tey injustice bi am ci bërëbu liggéeyukaay nit ñi war am contrat am contrat nit ñi war am stage rémunéré ñu leen koy jox tay da nga gis nit kuy def stage di di dox pour dem liggéey wala wala wala wala leneen donc il est temps que ça cesse que ces grandes entreprises là respectent les gens et respectent les jeunes tay xalé yaa ngi ni di jël gaal ñu jël gaal gi di dem Europe wala di dem feneen mais injustice yi rek ñoo ko waral injustice yi képp képp ñoo ko waral ah dëkk bi metti ci ñoom ñi yor ay soxna ko seeni càmm bi yor na soxna yor kër ñu bëri dépendre ci moom tey buñ ko bëggee xañ tey contrat CDI e bi ñu bëgg koo nasaxal lool du dëgg du yoon te vraiment état Sénégal bu seetaanee lii complice la te ñu ngi leen ñaan ñu ngi ñaan tey ñoom ñëpp ñu autosaisir ci dossier bi jéem koo régler ci nu mu gën a gaawee waa Ndiaga man maa lay sant bu baax ndax euh, liñ naan euh, ganu waxkat euh, kenn mënu ko terale lu dul déglu ko kon pas yoy mi nga xamné ne me manam waxu kay ma euh, wax metti pour Sénégal Je jot man que lay sante di wax rek que ne état du Sénégal na jël ay responsabilités bu par rapport ak entreprise parce que man je ne vais pas me laisser faire wallahi man ñu ma me gënal fouf ñu may injustice ma tok di xolé té dama dégg sax ñu nan ñom ñi ngi en justice parce que di j'ai la banque qui pour ay arrière yu ma ko war fay depuis que ngeen licencié ma amatul ben échéance bu ma fay banque bi comme de toute façon ñom dañ may porter plainte <laughs> man lumay ragal ci sen plainte kon euh, kon man damay japp ne kon manam kasso kon manam dafa bok ci sama destin rek ma japp ne sama destin la bok mais ñen aussi japp len aussi dafa bok ci sen destin que ne un jour dina am kenn ko xam mo ñow mettre fin à votre injustice et cette personne son nom c'est Ousseynou Cham. Eiffage vous devez arrêter et vous allez arrêter merci beaucoup Ndiaga Parce que la vraie valeur du groupe, celle qui fait la différence, c'est notre capital humain. Plus qu'un simple objectif, l'engagement de la direction à garantir la santé et la sécurité de nos collaborateurs est un impératif. J'adore. J'adore. On adore.